mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aji mbëggeel ji bëgg ñépp xam yoonu mucc bi te di ko topp bég nanu ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub mbokk yi nuy déglu xam ngeen ne wolof njaay dafa naan alalu golo ca lex ba muy dëgg gu wér ndax fonk gu golo fonk alalam moo tax du nu am benn coono ci biral ne bu alalam jooju rëccoon ba wadd bëgg ko réer dina ko wut ba gis ko te sax misaal mi mën naa bañ a sore ku fi sa alal réeroon li wér mooy dinga ko wut ba gis ko mu jaral la sax fu nekk nga yéene ko fa lii moo nuy dugal ci sunu njàngum tey mi di beneen léebu bu yéesu waxoon fekk na booba ay juutikat ak ay borom baakaar dañu ko déglu si woon ba ñu déggee njàngaleem ñu nangu seen dund wu jagul fa kanam yàlla noonu ñu gëm yeesu di ànd ak moom bi farisiyen yeek xutbakat ya gisee loolu ñuy ñurumtu ñuy fexe tuumaal yeesu naan dafay ànd ak a lekkandoo ak ay borom baakaar ci loolu yéesu daldi leen wax léebu bii ne kenn ci yéen soo amoon téeméeri xar te benn réer ci nooy def ndax doo bàyyi ca parlukaay ba juróom ñeent toppi ma réer ba gis ko te boo ko gisee dinga ko gàddu ak bànneex yóbbu ko ca kër ga boo agsee ca kër ga dinga woo say xarit ak say dëkkandoo ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama xar ma réeroon maa ngi leen di wax lii ci noonu le dina am mbég ci asamaan bu benn baakaarkat tuubee ay baakaaram te mbég moomu mooy ëpp mbég mi am ndax juróom ñeent ñu jub te soxlawuñu tuub seeni baakaar xarit yi ñu déglu danu leen tànnal léebu bi ndaxte xam ngeen ne àddina sépp alalu yàlla la rawatina nag nit ñi nit rekk la yàlla sàkk ci melokaanam moo waral nit am xel xol ak coobare noonu mu mën a xam yàlla bëgg ko di ko déggal te di ko màggal moo tax mbind mi ne yàlla lanu fi nekkal nekkalalu fi keneen mu leer walla mu ñàkk leer yàlla dafa sàkk nit ngir mu xam ko di ko jaamu giiru dundam moo tax yàlla sàkk aadama ak awa ci melokaanam ñu nekk alalam ji mu gën a fonk waaye ndeysaan nit tànn déggal seytaane ba tax seytaane daaneel ko ci bàkkaar noonu nit tàqale ko boroomam réer mbokki déglukat yi noonu la nit nekke alalu yàlla ji réer te lépp ñàkk topp ndigalu yàlla moo ko ko yóbbe waaye ku sa alal réer faaw nga seeti ko ndegam nit mooy alalu yàlla ji mu gën a fonk yàlla daldi tàmbale yëgle ne dina yónni reenu xolam di musalkat bi musalkat boobu nag sasam moo doon wuti nit jubale ko ak yàlla moo tax bi yeesu musalkat bi ñëwee yàlla yenn ko sunu njubadi nun ñépp ni ko yonent yàlla yi waxe woon ne nitu naqar la woon te dëkke coono sunuy metit ak sunuy naqar la gàddu te ñu yaakaar ne ci mbugal la nekkoon ne yàlla fàdd na ko toroxal ko waaye sunuy bàkkaara ko tax a gaañu mu ne laaj ndax sunuy ñaawteef mbugal gi nu may jàmm ci moom la dal te ay góomam ñoo tax nu wér nun ñépp réeroon ni ay xar ku nekk aw sa yoonu bopp te aji sax ji yenn ko sunuy njubadi nun ñépp ci lu wér deewu musalkat bi mooy njëg gi nu yàlla fayal ngir nu mën a dellusiwaat ci loxoom nun ñi réeroon ni xar yu ñàkk yàlla dafa mës a bëgg nit dellusi ci moom ba tax mu koy seet di ko wër la ko dale keroog ba nit baakaaree ca toolu aajana ba tey yàllaa ngi koy seet wut googu yàlla di wut nit ngir dellusi ko fi moom firndeel na ko ci mu jóg jamono ci li mu yónni yeesu mu ñëw ngir seet te musal ñi réer ni ko liñ jiil waxe waaye nit dëgër bopp rekk ni xar mu bañ topp saamam léegi nanu dellusi ci sunu niti diine yi nekk ci léebub tey bi lu tax bi farisiyen yeeg xutbakat yi gisee yéesu muy ànd ak boroomi bàkkaar ak a lekkandoog ñoom ñuy ñurumtu di ko tuumaal ndaxte ñoom dañu amul woon benn yërmande ci bàkkaarkat yooyule te it gisuñu woon ne nit ñooñu tamit bokk nañu ci mbindeefi yàlla yi mu bëgg a delloosi fi moom moo tax yéesu waxoon leen ne yéen xutbakat yeeg fariseen yi naa yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tëj nguuru yàlla aji kawe ji ci kanamu nit ñi du ngeen ci dugg te du ngeen bàyyi ku ci bëgg a dugg mu dugg ci dingeen torox ndaxte yéen a ngi wër géej ak suuf ngir sàkku benn taalibe ba noppi ngeen def ko nitu safara ku leen yées ñaari yoon ñoom niti diine yooyu li leen gënoon a soxal ci nit du muccam moo tax dara jaaralu leen woon ñu toogandoog nit ñi ñuy tudde boroomi bàkkaar waaye yéesu moom xamoon na ne dafa war a nekk ci seen biir ngir mën leen a génne ci seenug réer ni ko mbind mi waxe ne ci biir ñi neew ngëm meloon naa ni ku néew ngëm ngir gindi leen dama doon lépp ci ñépp ngir def lépp lu ma mën ba ñenn mucc ci kon ni ngeen ko dégge yéesu xamoon na ne faaw mu dugg ci biir baakaarkat yi su ko deful woon kon li wér mooy dinanu dee ci sunuy baakaar te bu boobaa dina dinanu dajeek mbugalu yàlla njiiti diine yu jamono yi yeesu ñoom itam dañu soxla woon mucc gi yéesu indi képp kuy nit soxla nga mucc googu wante ñoom dañu xalaatoon ne ñu jub lañu ba soxlawuñu ko waaye loolu weetuñu ci ndax ba tey am na ñuy xalaate noonu ba tey am nañu foog ne ñu jub lañu moo moona kàddug yàlla nee na ku jub amul du kenn sax te li borom bi yeesu wax sax dafa leer nee na ñëwuma ngir woo ñi foog ne jub nañu waaye ngir woo bàkkaarkat yi ñu tuub seeni bàkkaar bi yeesu di wax loolu xamoon na ne doom aadama yépp dañu dëng fa kanam yàlla ana kan moo mën a wax ne bëccëg bépp du ci def benn bàkkaar ci xalaat ci wax wala ci jëf amul moona yàlla dafa ne ku sàmm yoon wépp waaye nga xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp ndaxte yàlla mi ne bul njaaloo teg na ca ne bul fen kon ku njaalowul waaye nga fen jàdd nga yoon wépp loolu nag kon moo tax mbind mi wax it ne yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw ay jëfam waaye ci gëm Yeesu Kirist ndaxte du caageenuk sàmm yoon mooy tax yàlla àtte kenn ni ku jub kon xarit yi ñu déglu léegi leer na ne jub fa kanam yàlla gëm almasi bi mu yónni rekk mooy tax nit def ko kenn mënula jub ci jëfi boppam mbokki déglukat yi nanu fàttaliku ne nun nooy ñi yàlla gën a fonk ci lépp li mu sàkk waaye sunu baakaar nu tàqaleek yàlla ba tax nu réer looloo tax mu yabal yéesu Kirist musalkat bi ngir mu ñëw ci àddina wutsinu noonu yéesu fayal nu sunu boru bàkkaar ba mu deewee ca bant ba te ñetti fan gannaaw ba mu deewee mu dekki génn bàmmeel ba nootal nu dee gi ak safara ba faw ki nu defal loolu mooy musalkat bu am doole bi nu yàlla yónnee noonu bu nu ko gëmee ci lanuy mën a dellu fa yàlla te bokk ci mbégteem ci léebu bi bi boroom gétt gi seetee xar ma réeroon ba gis ko daf ko gàddu yóbbu ko ca kër ga te ba mu àggee mu woo ay xaritam ak i dëkkandoom ngir bànneexoo ndoog moom ndax li xar mi réeroon feeñ naka noonu yow miy déglu yéesu sàmm bu baax bi mu ngi lay wut mu ngi wut ñi xam seen ñàkk doole te bëgg a dellu ca yàlla moom mooy yoonu dellu ca yàlla moo tax mu sañoon a wax ne ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may nooflaay gannaaw ba yéesu deewee ba dekki tàggoo woon na ak i taalibeem laata muy yéeg asamaan mu ne leen dem leen ci àddina sépp yëgal xabaar bu baax bi mbindeef yépp ku gëm te ñu soob ko ci ndox dina mucc ku gëmul des na ko daan ndax dégg ngeen li yeesu waxoon mu ne képp ku gëm xabaar bu baax bi ci mbirum deewam ak ndekkiteem dinga mucc waaye ku gëmul des na ko daan dëgg la yéesu tuur na deretam ni sarax bu mën a far sa boru bàkkaar wante du la jariñ dara soo ko gëmul noonu la kay soo gëmee xabaar bu baaxu yéesu kirist dinga mucc bu ko defee yow mi réeroon léegi dellu nga ca yàlla waaye nag soo ko gëmul mu ngi mel ni yow mi réeroon ñu won la yoonu dellu ca yàlla nga bañ ne doo ca aw boo ko defee nag li wér mooy dinga sànku ci say bàkkaar ni xar ma amul woon sàmm ca màndiŋ ma xam nga ne bukki walla njàppaana ko fay fekk fàdd ko mu sànku noonu itam képp ku bañ a ñëw ci yéesu sàmm bu baax bi seytaane dina la fàdd nga sànku ba faaw wante ñi yeesu woo te ñu gëm ko dina leen delloo ca yàlla te noonu mbég mu rëy mooy am ca asamaan ni mbég di amee ci kër boroom gétt gi xaram réeroon te feeñ moo tax yéesu wax ci njeexteel léebub tay bi ne ci noonu le dina am mbég ci asamaan bu benn baakaarkat tuubee ay baakaaram waaye xarit yi mbég moomuy am ca asamaan ndax benn baakaarkat bi tuub ay baakaaram mooy ëpp fuuf mbég mi am ca kër boroom xar ma feeñ ma kon bu leen fàtte ne niti diine yi jamono yéesu yooya li leen gënoon a soxal ci nit dug muccam rawatina sax ñi ñuy tudde niti baakaar seen daraja bopp rekk a leen soxaloon waaye yéesu moom xamoon na ne dafa war a dugg ci seen biir ngir mën leen a delloo ca yàlla ba tax mu daan dugg ci biir bàkkaarkat yi ngir gindi leen ba ñenn ci ñoom mucc yéesu xamoon na ne su ko deful kon nun ñépp dinañu dee ci sunuy baakaar kon yow miy déglu te gëmaguloo yéesu ba tey xamal ne nga dellu ci moom rekk la yàlla bëgg ci yow ak koo mën a doon mu ngi lay xaar fàttalikul ne yéesu nee na man maay yoon wi ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may nooflaay te it fàttaliku ne yàlla def na li mu waroon a def lépp ngir wut la nga mën a dellu ci moom yow rekk yaa ci des yàlla nag moom jaayul mucc gi dafa la ko bëgg may dafa la ko bëgg baaxe ndaxte yéesu mi kenn képp ki la mënoon a fayal fay na ba noppi léegi lenn rekk nga war a def nangu xabaaru yàlla aji sax ji maanaam nangu ne yàlla dafa sell te amul lenn lu taq baakaar lu ko mën a jege fenn bu loolu wee nga nangu ne nit baakaarkat la ni ko kàddug yàlla waxe bi mu naan ñépp a baakaar noonu nga gis ne kenn amul menn pexem jege yàlla du yow du man du keneen ko am pexe ma bu ko defee nag nga gëm ne yàlla moom am na pexe yàlla waajal na pexe ngir nga mën a dellusi ci moom pexe mi mooy yeesu mi mu joxe mu dee ca bant ba ngir far sunu boru bàkkaar noonu nga gëm ne yéesu mooy musalkat bi la yàlla yónnee mu deewal la ca bant ba ñu suul ko te mu dekki ca ñetteelu fan ba boo ko gëmee gëm saraxu yaramam na la wóor ne am nga mucc gi ndax deretu almasi bi tuuru ngir far boru bàkkaaru képp ku ko gëm noonu ci sunu leebu tey bi nit nit ki doon bànneexoo ndax xaram ma réeroon te feeñ noonu lay ame mbég ci asamaan bu benn baakaarkat nangoo mucc gi ko yàlla waajal ci yeesu nanu déglu li yéesu ci boppam waxoon mu ne man maay saamu bu baax bi saamu bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gudul jeex duñu sànku mukk nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen jox dox daje beneen yoon ci waxtu wi su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub arobase sentu point sn yoonu njub maanaam Y O O N n j u at sentu point na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yeesu wax ne doomu nit kii dafa ñëw ngir seet te musal ñi réer